dafa am lu important su ma leen bëgg a wax ñetti yëf góor bàyyil di sangoo taati nen sa doom bi tamit simbeeku taati nen ngay sangoondoor ak moom góor en tant que papa bu ko def bàyyil baaxut beneen bi mooy en tant que papa bul nekk di simbeeku taati nen sa doom bi taxaw ngay solu ci kanamam bu ko def jigéen tamit bul sangoog sa doom bu jigéen si biir wanag nga def taati nen nga naan sama doom la du dara bul simbeeku tamit sa kanami doom bu jigéen nga def taati nen baaxul bu ko def man du ma ko def man niñ ma yaree laa nekk di yaree sama doom yi man sama doom yi bu ñuy dugg sama cabinet dañuy fëgg parce que man loolu lañ ma jàngaloon fi ma juddu dañuy fëgg balaa ñuy dugg sama néeg parce que fii sama cabinet la ñoom it am nañ si néeg soo bu ñuy dugg sama néeg dañuy fëgg xanaa su dee dama ubbi bunt bi beneen nii maanaam ma ubbi ko ba mu sës comme instant yi nu mu ubbeekoo nii xam nañ ne su ma day julli wala su ma day ranger parce que bu ñu rombee nañ ma gis waaye du ma nekk di simbeeku ma ubbi bunt bi xambalan lenn ngeen xamut xale yi suñuy foo ak seen morom xale yi dañuy wax loolu yëpp li seen parents yi di def liñ gis buñ demee école dañ koy wax beneen bi tamit mooy bàyyi leen di sëy seen borom kër yi seen doom bi nekk fa ngeen naan garaawut kii xale la xamul dara ngeen di laalante ci kanamam xamul dara waaye mën na koo expliquer te da koy expliquer dëkkandoor mbaa mu expliquer xale yu muy fooyal mbaa su demee école da koy expliquer comprendre nga leen na ngeen dafa am benn xale xale bi mu ne moom cuccoo mi dafa tuuti de mu ne waaye baayam bu rëy la amee ma ko ah imagine xale di wax loolu xale bu ndaw boobu noonu malayka bi kon dafa mel ni moom papaam day sangoog moom te loolu rafetut bàyyi leen di sangoog seen doom yi parce que loo leen def xale yi xale yi duñ dee fen te tubaab bi dañ leen dee gëm de duñ dee fen loo leen def seen kanam buñ ñëwee ci école yi mbaa ñuy foo ak seen morom yi mbaa ñuy ngeen am gan nga bàyyi ko gan mu expliquer ko ko gis nga yar doom dafa metti dégg la Europe la nit ñi dañu ne waaw kenn du fi yaree nii doom comme ni ñu yaree Afrique kan moo la wax loolu lenn rek nga leen dul def mooy dóor doo leen dóor waaye buñ defee dara luñ warut a def nga nangu seen iPad si mbaa nga siis seen téléphone yi mais bi fa two days loolu mooy punishment loolu doy na punishment jarul nga leen di door sax xale danga koy yar bul ne parce que fii la juddoo rek nga bàyyi ko kom béy déedéet yow it nga nekk papa ak yaay nga ne ah parce que fii Europe la rek xale lu ma def seen kanam garaaw géwél garaaw na kay garaaw na bay bëgg a dee bàyyi leen xel bu baax a baax a baax loo leen def seen kanam yi doom dama leen koy wax en tant yaay musuma see am expérience nag waaye dama dee dégg yu mel noonu dama ko dee dégg nii life and die rek nekkul ne diw moom ma wax keneen wax ma ko soo bàyyi leen xel bu baax a baax li ngeen di def seen kanam yi doom yi dégg koo xam ne yaay nga ak papa